waaw salaamaaleykum chers téléspectateurs comme ni ñu leen koy waxee saa su nekk yéen a ngi seen émission sama yëf la daanaka daan ngeen gis Zeynous saa su nek mais tey yéen a ngi am fii Zara tey ji Zeynous daa am si lu mu nekk loolu moo tax ñëwul mais du ma def lu dul xuus jàll biir wax ak sama gars nek nekk ci biir le stop ma ñu dem. salaamaaleykum. ça va. góor gi na nga def. ça va je vais. si loo nekk. ça va alhamdulilah. mbaa yaa ko. oui ça va kan. lu waraloon sa teewaay tey fii nii. bon justement je suis benn invité la pire rek ma bokk est staff quoi. ouais loolu rek moo fi teew la woon quoi. mais est-ce que xam nga ni fii tey dina wàcc. oui ça se voit vraiment ça annonce hein ouais waaw dundal taw feex dégg nga ah. ok merci ok. salaamaaleykum. maaleykum salaam. góor gi naka def. waaw sant mu ñëw moytu rek. si loo nekk. sant mu ñëw moytu rek gis naa nga def sa sorte bu. waaw gis nga de gis nga xam nga rek. def nii wu ndax xale yi rek. waaw lu waral loolu. waaw bég kontaan xam nga. affaire yi xam nga di jeesoo affaire yooyu noonu ñëpp si biir xam nga. soulagé quoi. oui. dundal jàmm day neex yow. waa xoolal dama mar instant bi damay def toog guux nii. ah man ne da di doog ah. lu dul dem si xale nga xam ne dañoo bari instant fi. mbaa yaa sant que xam nga ni sa sëba baax na. merci yaa ngi def mignon nii. tur bi naka la. Ana Sané. Ana lu waraloon sa teewaay fii nii. ah DJ Sada moo ko waral. ah DJ Sada moo waral. waaw waaw li nga def neex na. merci waaw na fête bi neex. soxna si. maa fi si loo nek ça va bien mbaa yaa cool. sant rek. est-ce que xam nga li nga def dafa graw luma def. li nga def dafa graw ah xawma luma def. xébo li nga def. non non li nga def naaj na trop. merci lan ma waroon sa téway fi ni wa dama ñëw rek jappalé sama doom day marraine bi. xam nga fi nek dafa sori ci man ma ñëw jappalé ko ci bis bi rek. man de bama la gissé dama yaakaaroon ni yaay marraine. Ah. non moom mooy marraine bi nag. ah kon na neex dégg nga waaw xoolal instant bi ñoo ngi fii ci la Rose ba léegi nii nii maa ngi fas yéene jàkkaarloo ñii nii tey fii dina wàcc tey jii de soxna si na nga maa ngi fi ci loo nekk. ça va bien. mbaa yaa ngi cool. ba tranquille. yaa def nii. non non defuma dara. lan moo waroon sa waay fii nii. waa kii rek xam nga ne dama def lu baax rek ñëw pour doxantu fii rek. xam nga rek. waaw kon feet bi neex dégg waaw de teewaay xam nga rek Dior moom dafa nekk koo xamante ne sunu grand la quoi. Ah. xam nga tamit ñu nag moom ñëw dëkk. xam mu doon gaañal bu baax tamit xam nga dem. xoolal fii nii fii dafa neex instant ay xale yoo xam ne dañoo féroce namuñu dara instant bi def lu garaaw xoolal topp ma soxna si Ça va? ça va. ça va Ba. lan sa lan waral sama parce que le DJ c'est mon grand frère en plus j'aime bien venir ici parce que ça me permet de me distraire. ok kon na fête bi neex dégg nga ah. soxna si loo nekk ça va maa yaa ngi waaw maa ngi lu waroon sa teewaay fii. Oh, parce que DJ Sada suñu frère la te fii dañuy relaxé wu tamit en plus c'est pour cela waaw. waaw man xoolal man ba Ristip tegee ba léegi laa gëj a gis lii nii lii gëj naa koo gis depuis Ristip ba léegi topp nañ la. bonsoir. ci loo leen nekk. ci loo leen nekk. cool cool. bàyyi na ngeen naaj. mu ngi neex mu ngi neex. bañ dundee ambiance bi. ah mu ngi nii rek yaa mu gën a xam quoi. lu waral sa teewaay fii nii tey. riz riz. ah. riz moo ko waral quoi riz. riz moo ko waral. mais dafa mel ni riz am na ay nit de. si am na ay nit de ah. waaw maa ngi gis ambiance bi fii nii ak people bi nii. si gars yi dañuy teew. waaw dundal jàmm dégg nga ma dem ñëwaat. the grapes, so it's both me not. Smoke the grapes, me not. Ganja man, I smoke the grapes. Let me tell you, I can't hear her. I can't hear her. I can't hear her. I can't hear her. I can't hear her. ok merci sos sos bi à nga tàndaaw je dis ce propos. waaw yaa ngi def ñu ànd ak sa jigéen mu toog sa biir il y aura plein de artistes et jusqu'hier Torsico il sera là Aron Sekin il sera là jusqu'hier waaw ba léegi fii ñooy Chileuse nee nañ tey dañ fi am benn DJ show du ma def lu dul ñu dugg si biir xool DJ bi lan lay xoos tey fii nii topp ma ñu def ci biir salaamaaleykum. na ngeen def ça va Ina. si la nii yaa ngi si jàmm. ba yaa ngi cool maa ngi cool bu baax ala yaay DJ bi. non man pare laa rek. si ah, biir waaw waaw man nga pare. ah waaw man nga pare. waaw man la Brésil moo tax. léegi koy dundee public tey. ah bés moom neex na trop kontaan naa. waaw ndax bés bu tuuti daal yaa ngi merci beaucoup. salaamaaleykum. waa xoolal bi daf may jox ma xoos tey damay xoos dégg nga bi de naka de. maa ngi fi. si la dégg ah. ah. xam nga li ngay def man de. waaw gis nga dañuy jéem rek. waaw Franck Kër. waaw Franck Kër Mbaye Fall kii mooy sama Lil Wayne quoi moom laa àndal fii sama manager sama lépp tey ñëw pour dëggal gars yi juste ama rek. waaw nan ngay dundee lii ak ambiance bi ba xam méttiwul genre. waaw dara boo ñu naan sax xam nga li ci kanam moo daax sax. waaw mais bi nga xoosal ma ma xool li ngay def. maa ngi cool. maa yaay cool. yeah nice nice. ngay dundee ambiance bi. action bi nice ah mi ngi neex léegi jàmm c'est la fête. yéen a nekk si wàllum xoos bi. pardon. yéen a nekk si wàllum xoos bi. yeah yeah ñoo gérer affaire yi nii. Ah. waaw parce que li ngeen di def nice na trop. yeah bëgg nañ bëgg nañ ñëw ngeen jàngal ma. ok non non loolu du problème yaa ma gën a xam li ngeen topp. salaamaaleykum. maa ngi soxal seet. tur bi naka Chiffon di jël Chiffon di jël Chiffon waaye di xoos neex na de ah mais def loolu lañ fi am instant bi kii mooy joué mais après xam naa boo jaaraatee waaw après naa ñëwaat seen kàtt ak waaw ba tey toog nañu dem xoolal fii ay kaana laa fi fekk instant bii nii xoolal kaana yi def lu ñu wax ñan gi na nga maa ngi sant bu maa ngi nii di happy. yow est-ce que xam nga ni kaana la. est-ce kaana bu ma def kaana man original sénégalais laa. oh kaana nga. du ma kaana. xool ma bu baax. Ah. bul ma def kaana bëgguma ko. dama bëgg nga def ma sénégalais bi ma doon. waaw sénégalais nga ba tey en même temps maa la bëgg a doon kaana. damay bañ.

fii tey du yomb mais li ma fi gis nii nice na torop damay seet sama morom mu jigéen yi nii xam nu ma def ak na ngeen def. ñoo ngi fi. si loo leen nekk. ñoo ngi fi ñoo ngi nii. ambiance bi fii ah, allah moom ambiance moom neex na macha allah moom. lan moo waraloon sa teewaay. non dañ maa invité woon moo tax. maa invité waaw. waa na neex. ba legui ni yéen a ngi gis ambiance bi fii nii ngi neex bay bëgg dé duma def loolu dañuy xuusaat ci biir xol lan mo fa nekk ci biir top ma ñu lego fi lay dem wax ak ni assalamu alaykum na nga def soxna ci ça va. li nga def neex na de. merci. mais est-ce que do simé ko jox ma li nga def. non amul problème dina la ko jox. waaw après dañuy gisé ci ginaaw ko jox ma lé def. amul ben. lan mo waralon sa way fi non tay sama way dara waraluko ko sama frère mo organiser Richard. Uh-huh. maa mom moom ñoo bokk benn sama mag la aha. Uh-huh. Uh-huh. Mom tax ma def fi teew xam nga rek ci merci beaucoup de góor gi na ya. nga def. waaw ça va. si loo nekk. def jàmm. maa ngi lay gis nga def petit relax nii lu waral loolu. Euh, mooy dañ may invité en tant que artiste quoi. dama nar a joué bi si kanam quoi. ah da nga war a joué fii. waaw dance ngay def wala. non non rap laay def. rap ngay def waaw xam naa après dinañ la gisaat si biir. amul ragal amul ragal dinañ gis lu yéeme. mais mbaa yaa ngi fépp yi. dafa leer dafa leer. waaw kon na neex kon. ma leen jongal fii wax ak ñi. ngeen def. jàmm rek. loo ñu dundee fii. non affaire bi nice quoi. Saare ah. Saare daf ñu ko waxoon mais gëmuñu woon ne nii lay nekk.